تيما وخجمي سيدي ميسي لا رحبة أبو جارب مويكيكو لاتلين أبو بكر أبو الخيب ميسي لا ننبم تترام لا يران ويخولم تقول سلوما أكدر أبو بكر عنا لرقب تيما وخجمي سيدي ميسي لا رحبة jaara mooy kii ko wax la tee leen Abubakar waaw waaw ku koy mawlaaya Cheikh Seydi El Hadji Babou Sakho

در سقر در قبل نك غاست أبو بكر أبو الخيب بيتي ومردتك مدهرا مجهولا بحب سلمان أكل أبو بكر هل ينسى تلميل من برميدان إبليس جلو يردان بكر يتمون نركن لمي أبو بكر أبو الخيب بيتي لنا بمدة الأمر harib la moom bu xam boroomam xam na béyay yaba moom kum ci yor sa xol dana xam ne koy xaas Abubakar Ali mbër mi daan iblis ci lu wér daan bakkan itam mu kan la mooy Abubakar am dëtul amul ay rab mu xolom tebul sunu am Aliyun seetal mi le mbër mbër mi daan iblis ci lu wér daan bakkan itam mu ne kan la mooy Abubakar am dëtul amul ay rab daan na àdduna ci luur fab bakkan ne ca sooga dóor dóor ci suuf bànneex mu demir daan la jim Abubakar xayiru mbay ci la daan comme de tout noonu la yaram ngay xolam de musulman ak leer Abubakar daan na àdduna ci luur fab bakkan ne ci suuf bànneex mu demir daan la jim Abubakar maa xayiru ci la daan comme de tout noonu la yaram ngay xolam ya kurama nujaba oye bon zama marifina ye bon kama japuna abubaka bamda tu amuna yaran bokolom demud suduman akaler abubaka ole awliya kurama nujaba oye bon zama marifina ye bon kama japuna abubaka awlu qaybu mayjilana bamda tu amuna yaran إسريات نام بولن تيمي نام بولن تيمي يا قرا زون أبو بكر أو الغيب ما يجينا نام دتنام أيرا مقلم بكل زمان أكل أبو بكر نام بولن تيمي إسريات نام بولن تيمي نام بولن تيمي يا قرا زون أبو بكر أو الغيب ما يجينا imam ya muhammad ya abubakar arqai mai jiran nan da tudamun ayara mafaram da fulsulman akala abubakar ismullahi tai asak kuma wasiru rahmatar imam ya muhammad ya abubakar arqai mai jiran nan da amma mo uyo mani nan leri yalla bay baga sañ mayal delo da babañ ko dingir abu bakar aw qaybu may jilan an bandatu namun ayaram mo qawla amma mo uyo mani nan leri yalla bay baga sañ mayal delo da babañ ko dingir abu bakar aw qaybu may jilan an bandatu namun ayaram mo qawla mbay de yaa fi gën tarbiya mbay de yaa fi gën mbay de yaa fi gën tarbiya seetlu leen Abubakar moom xoolam suluman Seex Kabir la moom bu màggee nekk soobiyun moom tamit la moom dafa je maayirun Abubakar mbay ci la naan ay mayam Seexuna Omar moo ko yar may ko ay mayam Seexuna Omar moo ko yar may ko ay mayam jokk moo di xas yi mu yar muy defar Abubakar ay nu may ci la naan ba na tuuram la yaran ba xolam deful zulmaan ak leer Abubakar yàlla may ñu fante wéral sunu cër yi bu sunu xel mi dalalal kon ñu xam Abubakar ay nu may ci la naan ba na tuuram la yaran Aliyo rabel kaala la leen ma ki ko kaala tey ma wax ki ko kaala Seydi Mbaye moo ko kaala. ayaram moom xarum te ko sulman ak leer Aliyo rabel kaala la leen ma ki ko kaala tey ma wax ki ko kaala Seydi Mbaye moo ko kaala. abdora belkala lallel ma tiko kala tay ma wa tiko kala sidi may mo ko kala awai bu may jira nan bam da tu no mo la yaran ko lan te fu sulma akare abu sëñ Santoro be kaala laaj leen ma kii ko kaala tey ma wax kii ko kaala Seydi Mbaye moo ko kaala. amul xëy nu mbay ci la naan comme na tuut amul ayaan. mooy xolam dëkkum suluman ak ndel Abubakar. alay jaaral rebe kaala laaj leen ma kii ko kaala tey ma wax kii ko kaala Seydi Mbaye moo ko kaala. amul xëy nu mbay ci la naan comme na tuut amul ayaan. mooy xolam dëkkum suluman ak ndel Abubakar. Seydi Hafiz rebe kaala laaj leen ma kii ko kalam tayma wa fi ko kalam sidi may mo ko kalam amal bay dum bay jila na to ram ayara mon kalam ko la len ma ko Abdou Salam refet kaala laaj leen ma kii ko kaala tey ma wax kii ko kaala Seydi Mbaye moo ko kaala. yàlla refet kaala. Abdou Salam refet kaala laaj leen ma kii ko kaala tey ma wax kii ko kaala Seydi Mbaye moo ko kaala. moom xoolal. mel ni gars yi woy nañ woy wu neex macha allah Seydi Mouhamadou Nassirou Sakho tey soppe Farokh TV moo leen certifié ci Sakho Séri njaboot ak Maolana Seydi eh, sëñ bi woy fi woy neex di Seydi Mouhamadou Nassirou Sakho tey ñu am fii eh, dereetu jëmm jooju xam ne sànq ba léegi moo lañ fi tagg di Seydi Mbaye jëm yëpp moo ko waral tey am fii njabootam wala ay njabootam la wax. waaye am nañ ci kenn ku ñu mën a rotal fi ay kaddu di sëriñ Abdou Salam ñu ngi lay ziar sëriñ Abdou Salam ak euh, gannaaw bi la ñu ngi lay laaj xasida yi nga xamante ni sang bi way na fi sànq euh, xasida yi doy waar yu yaram ak euh, kan moo daal weesu na ko loolu daal moo la amoon mooy mooy fi nga teg fi nga jàppee weesu na ko. moom Seydi Mbaye. waaw fi nga jàppee moom Seydi Mbaye. Mhm. moom weesu na ko loolu si loolu xas xam ne mënees nañu si këyit. Mhm. waaye da si doon barkeel rek. la waaye sax waaye saa yëpp rek xaju si këyit. loolu leer rek dëgg la waaw mel ni tey moom loolu du yomb ndax tey la ben fana weeru koor ñoo xam ne dafa métti gars yi bëgg jàng moo ñu def lu ñu def nii yëpp macha allah gannaaw bu loolu sëñ bi tay la ben fana weeru koor nit ñi dañuy soxla leen leeralal nan lañ war a tënku ba mën a koor yi am koor gu ñu nangoo. te nit ñi bari xamuñu léegi ñu bëgg nga laaj ñu biir ci loolu. waaw ñu ci tënk ko rek mooy bi si jiitu moo di yéene. gannaaw bi nga xam ne woo te fekk yéene woo wax jiitu mbir moo di yéene. su ko yéene amul yàqu na. no yéene. ci xol lañ koy def. ci yàgg da nga ko du ci làmmiñ ci xol lañ ko fas ko dara moom parce que daf ko boo xëyee li jiitu danaa ni yéen rek ci bakkan la wala ci nopp la wala ci bët lu mu a doon rek cëri juróom-ñaari daal mbooleem li muy bànneexu rek moom nga wutuñu ko xam ne itam soo demee ba jàmmante moom mën a yàq sa koor amaana su fekkee ne mën nga jàngwante yooyu ne te mën nga jàngwante yooyu yooyu noonu moo waral te doo si amee bànneex foofu moom. Mhm. téere bi jàng mooy su ñu wóoree ba ñu amee bànneex. Mhm. ñu jàng mooy li ko si waaye nag su fekkee ne yow da ngay sikki sàkk xam da nga jéem waaye dafay aram. dafay mhm. boo xam ne yëpp dafay aram yëpp dafay aram. ngay jëfandikoo daa ñàkk tafsir su fekkee ni weeru koor ren yi dana yéeme ndax am na benn balaa bu ne ci réew mi wala ci àdduna bi sonal nit ñi lool weeru koor ñu ci ay tafsir tafsir na bu ñu ko waxee mbooloo dana xam ren moom loolu noo ko jàngatee yow ak tafsir bi nu muy demee. waaw tafsir bi leen leen la leen mën a ko wut sax sans daje ndax jamono dem na ba toolu ko xam ne mën nga toll si nekk la toll nekk mu koy war di ngeen daje. dëgg la loolu day waral sabab bi mooy lan portable yi nga xam moom la ñu jotee. Mhm. yi. mën nga toog seen néeg def li ngay def hmm. envoyé ko doomu aadama yi hmm. ñu xoolal hmm. balaa bi amaana balaa bi wàcc nag boobu moom ndogalu yàlla la danga koy nangu waaw su fekkee ne yàlla dafa wàccee balaa bi nga taxaw di làng te yaa ngi koy daw di def yenn kii foofu gënu ndax jullit dëgg dafay nangu lu yàlla teg te itam yàqul kenn koor képp koo xam ne yorewul ko itam yàqul kenn koor mhm. koo xam ne yorewul ko yàlla du ñàkk a woor ngir balaa bi wàcc yàlla bu ko ñàkk a woor mhm. waaw si saaka daay fay daay kabaar mhm. lu koy def daay fay daay kabaar kon lii mbir mi daal mooy comme jotul la dëgg la wàcc na waaye nangu dogal yàlla ak ji mu woor macha allah sëñ Abdou Salam ñu ngi lay jaajëfal wax lan ngay wax eh, TV bi tey seet si leen di TV. waaw di am kontaan bu baax a baax Sope Farokh TV ñu may doxale kër la si kër tax dëkk dafi kër gi yeggutoon mën a dina ko fi yeggale ndax ñi fi nekk ñëw ñoo xam ne dañuy woote ñu ngi naan ñëw waaye ñi waaye waaye comme yow yàkkee nañ ni tuddee ko soppi fàtte di ñëw di jël si di yóbbu loolu lañ ci am mbégte mbégte lañ si am di ñaan yàlla yàlla yow ko. Mhm. am yàlla kawe sa maanaam bébét comme ni nga bëggee si kër eh, ni nga bëggee mu yeggee ci kër Seydi Mbaye mhm. yàlla kawel ko amiin yàlla barkeel ko xam yàlla yombal mbir bi ci ni bëggee yàlla yokk wërsëg bi amiin jàppandal lépp lépp ni ko bëggee yàlla musula ci lépp lu koy arrêté mhm. waaye yàlla taxawal ci lépp lu yokk mhm. sama la boppam seera ci bàtt Masya allah sing bi Abdou Salam sah lan ngay tagato. ñaan yàlla rek nang nangu suñu koor nga xam ne jamono koor lañ nekk ñaan yàlla yàlla nangu ñu ko lépp lu fi def daal yàlla bu ndax ay neen amiin waaye yàlla bi ñuy jëriñ ci àdduna ak àllaaxira barke Seydou sallallahu alayhi boobu boo xam ne si yàlla jaare si baal ñu mboolem bàkkaar yi mu sa def yi jiitu ak ñëw yëpp ñaan yàlla lépp loo xam ne maanaam ba ci réew mi di dañoo ko si ñu xam bu ñu xam yëpp rawatina bi nga xam ne moo gën a siiw xam dafa def àdduna bi yëpp yàlla yëkkati ko si du ma ñaan ne yàlla yàlla dañ ko si julli jullit kese waaye yàlla yàlla yóbbu si ndax te wala boo xam ne ñu may waalaati dañu yëm trop dëgg la waaw kon bu ñuy ñaan day ñaan yàlla yëkkati ko rek. Mm-hmm. amaana bu mm-hmm. ko julli amul jërëjëf sëñ Abdou Salam ko kontaan ci loolu macha allah.